yaa seydi yaa rasuulallahi shafiana yawman yunaadil munaadi fiihi la waa قد بدت من يوم مولده به لنتمعت ما دي الكفر بأسات ذاك شأن أتى لليوم أتى كسرى فقد هام للإيوان إيوان yawma واصل من الأطجار واسطة من غير واسطة إن شاء منكم لها جاكم وبواب

la la

lii la badri xarra may ne yaa seede yaa rasuulallahi shafi'ana yawman yunadi al-muna defeela sadabat madina tara muharraman qim min ajaibihi bi miqwalil xalqi ma للعين إخدام وين يا زيد يا رسول الله شفيعنا يوم ينادي المنى بذل سببة مدينة يكفيك فيما أتى الله من عجب وما تراه فتى كن فيه إحسان ويلي يا سيدي يا رسول الله شفيعنا يوما ليونى بالمنى بذل سلبت مدينة لولا لغشاوتما لت أنفسنا فرت إليه تاب ببغداد بل عيش عاكفة تنسي ما حولنا فما في الشات سيما ويلي يا سيدي يتيم يتيم فيك أنباني jëlamo الكريم له نعم الكريم كريم الأصل معتان من يا زيد يا رسول الله شفيعنا يوما ينادي المنادي في الواو بمجكر لوك يونين نلا جكر لوك شيخ ni mu jàkkaarloo Cheikh ni la jàkkaarloo aas ni mu jàkkaarloo aas ni la jàkkaarloo gi yéen ni mu jàkkaarloo yéen Cheikh ni mu jàkkaarloog Cheikh ni la jàkkaarloog aas ni mu jàkkaarloog aas ni la jàkkaarloog yéen ni mu jàkkaarloog yoneen ni la jàkkaarloog Cheikh ni mu jàkkaarloog Cheikh ni la jàkkaarloog yéen ni ma jàkkaarloog yoneen ah. ah. ni la jàkkaarloog Cheikh ah. ni mu jàkkaarloog Cheikh ni la jàkkaarloog As ni mu jàkkaarloog As ni la jàkkaarloog yéen jundul muhaymini laa xawfun alayhi wala xuznun yuzahziwo wastal qiraati lidaka tawassalna ilayka bi kulli ma atat ka samaaya muxtallatan bi suudiha Cheikh Tidiane si maktuuma wax loolu ñu ni xalif général de Tidiane mu ni famnun alayna ilaha al arshi xaaliqana bi suhbati l qutbi fi dunya wa oxrahu ni muy jàkkaarloog nabi na la jàkkaarloog cheikh ni mu jàkkaarloog cheikh na la jàkkaarloog aas ni mu jàkkaarloog ni la jàkkaarloog Sénégal ni mu jàkkaarloog yónnee na la jàkkaarloog Cheikh ni mu jàkkaarloog Cheikh na la jàkkaarloog As ni mu jàkkaarloog As na la jàkkaarloog yéen ndeysaan daa am as soxna tëdd guddi xaaju guddi benn sàcc ñu dajji buntu néegam dugg ci biir jël paaka bi teg ci kutam ni ko jox ma caabi armoire bi soxna si jox ko caabi armoire bi fa sàcc ba sëgg di jéem a ubbi armoire bi soxna si ni ci xelam jàkkaarloog foto Serigne Babacar galandiir bu mag bi naan ko borom bone kaare bi yaa ni woon boo rusuloon Maodo ku la woo ci sa portale nga wuyu ko ndeysaan sàcc bi ndékkaane jàmbu yi ñu nar koo jël bu ko yóbbee xaw ma fu ma jëm galandiir baa naaw dal ci doq sàcc bi mu denc bunt bi mbëkk ku génn defe ni dañ koo dóor aw soxna su jóg toog ci kaw lal bi ni wuub sàcc yi Babakar Si dàq na la ni mu jàkkaarloo gi yoneen na la jàkkaarloo Cheikh ni mu jàkkaarloo Cheikh ni ni la jàkkaarloo gi yéen Idris Diop Serigne du ne dama ko laaj ni ko lu tax bu ñu tuddee Serigne Babacar nga yuuxu mu ne dama mës a ñëw ci Maodo ni ko damay ñaan wér mu ne ma demal ba déwén nee ba déwén di lu see Maodo génn àdduna nee ma ñëw ci Serigne Babacar fekk ko ci këram gi ci ndakaaru ne buntu ëkk gi ci buntu kër gi ne ma jël paquetu cigarette bi rof ci suuf nee dugg ci biir mu may ma wér ne jox ma charte yi ba may génn mu ni ma li nga suul ca taatu ëkk gën ak soo jógee na nga ko bàyyi bokk ci ni mu jàkkaarloo gi yoneen na la jàkkaarloo ceex ni mu jàkkaarloo ceex na la jàkkaarloo ni mu jàkkaarloo aas na la jàkkaarloog yéen ni mu jàkkaarloog yéen na la jàkkaarloog Cheikh ni mu jàkkaarloog Cheikh na la jàkkaarloog Asta ni mu jàkkaarloog طيف من يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام طوى الهوى به القلب فيه الغرام طوى سرى طيف من يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام طوى سرى طيف من يا أخي قد هوى ويزعج شوكه والجوى سرى طيف من يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام توى فإن الفؤاد لفي لوعة ويزعج شوكه والجوى هوى سراطيف من يا أخي قد هوى فيه القلب فيه الغرام طوى فأين المفر إذا لم أجد فأين المفر الذي قد ثوى سراطيف من يا أخي

فأين شفيع الأسى على سبيل الوداد ووعر النوى صلاتكما يا أخي قد هوى من به القلب فيه الغرى منتوى فأين الكريم الذي اشتكى بعلة مرء إليه أوى سلاطف ما يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام انتوى فإن كان دهري يضر بذا أميل بوهي صفي روى إن كان دهري يضر بذا أميل لبهو صفي روى سرى طيف من يا أخي قد هوى به قلب فيه الغرام طوى فالنيل نوى